mbokk jullit yi ñi ngi sant suñu boroom subhanahu wa ta'ala di ñaan mu dëppale ñu ak ngërëmam adduna ak allaxira ñi ngi seede na moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu ñi ngi seede na yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy jaam bi mu yónni woon ci ñun mu war ñoo jàngal naka la ñuy jaamoo suñu boroom yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy nangoo roy ba ilaa yawmi diin gannaaw loolu mbokk jullit fokk ñu bokk xam ni suñu boroom yàlla ci li mu dogal bépp xeet am nañu ay bis yu ñuy màggal am nañu feet yu ñuy feetu amma ñun xeetu lislaam suñu boroom dañoo tànnal ñaari feet yoo xam ne amul bu ko ñetteel benn ba mooy feetu korité bi am gannaaw ba nga xamee ne nii woor nañu ba pare ñu dajaloo nag ngir sant suñu boroom ñaan ko ba ca tege mooy feet bii nga xam ne mooy feet bi gën a màgg ci feeti lislaam moom mi ngi am gannaaw jaamu yàlla gu mag muy lii di aj makka bañ demee ba def ponk ba ca gën a mag ca mooy taxaw ca arafa ca la nag suñu borom yàlla subhanahu wa taala yoonal nañu ñu daal di daje nag daal di ah julli it loolu it mbokk suñu borom yàlla lam digee ci jaamu yàlla noonu lu digee ajjanam ja ca xam ne ne jullit ñépp bëgg a dem aljanna ca jullit ñépp mënuñoo daje ci jaamu yàlla yépp looloo tax lu nekk rek ut na lam ko wuutalal koor a ngi nii yow mi nga xam ne mënoo koor suñu borom mu ne utalloo sarxe mu wàcc la te lii nga xam ne nii mooy aj màkka la chaque année un sur mille ci jullit ñi duñu dem màkka looloo tax suñu borom jamonoy aj màkka bu ñëwee mu daal di yoonal ay jaamu yàlla ponk ba nga xam ne moo gën a màgg ci arafa mu ne ñi nga xam ne nekk ñu arafa yoonal naa leen ngeen woor ko suñ ko wooree mu bal leen seen bakkaar yi daaw ak seen bakkaar yi déwén yépp lii mbokk di ngëneel bu màgg waaye tey bisub tey bii soo demoon tey makka la gën a màgg ci ponk at yi tey lañ koy def tey lañuy jóg dem sànni jamaraat yi tey lañuy rey seen hëdiyu yi tey lañuy watu tey lañuy teqali ko ak seen armalia loolee itamit ña nga xam ne nekkuñu màkka suñu borom yoonal leen julli gi ñu daje tey donte ne ne noonu la daan demee naka jekk mbokk aj màkka su masaan bari ba bari dañ naan 3 millions ñoo fa daje loolu mooy lim ba gën a bari waaye tey année bii ñuy dund tey di année bu marqué wu ci histoire suñu borom yàlla mi ngi won jaam yi ne xam leen ni see yéen ñii samay jaam ngeen suuf bii ngeen toog saa suuf la maa fi dogal lu ko neex looloo tax yàlla wàcceel ñu ay jaamam yu ñu dëppee korona wa ma adraka mal korona mbokk luy korona korona jaamu yàlla la boo xam ne dafay juddu dafay dund dafay dee bokk na loo xam ne scientifique yi wax nañ ko nee nañ benn korona bu taqee ci doomu aadama balaa 24 heures la dana multiplier ba met nekk 10 milliards de corona 10 milliards de corona ci benn 24 heures corona bu nekk ma nga dund boppam loolee nga xam ne boo ko bëggoon a gis il faut ñu multiplier ko ay millions de fois loolee suñu borom moo ñu wan kattanam mbokk corona ñëw na fekk kaw suuf tey ñi diaboliser diine yàlla ci bokk na ci loolee. suñu jigéen ñi yàlla sant ñu muuru ñay dem bay matal muuraay ga di roy soxna yonent bi di sol li nga xam ne mooy niqaab ñu diaboliser leen dàq leen ci service yi dàq leen ci milieu public yi mbokk suñu borom yàlla indi corona corona imposé président de la république imposé ñu gën a suufe ñépp ne dañuy war a sol ay masque partout ba tey nañ doon dàqe borom niqaab ya milieu yu bari boo fa duggee yoroom masque ñu dàq la ci biti loolee mbokk corona mi ngi ñu koy jàngal bii suñu borom yàlla tere na góor ak jigéen bu ñuy laalante ña nga xam ne nii dañoo bëgg a dundal loolu ñu leen jàpp ne ay ibaadu lañu ñu tardé lañu ba nga xamee ne tey bépp ku jigéen koo xam ne góor kilifa ñëw na di ko jox loxo joxu ko loxo dañuy jàpp ne scandale la wallahi yéen ngi ak seen benn soxna fii ci jàkka ji yal na yàlla dooli ko yiw muy soxna na fi saw maa ngi koy tudd ngir xale yu jigéen yi jël ko ko misaal dàq bañ ko dàqoon Senelec directeur ci directeur yi moo ñëw di nuyu personnel bi jox ko loxo mu bañ mu forcé na da koy nuyu mu bëmax ko mu dem def lettre licencié ko donte ne na loolu jural na ko ngeneen yoo xam ne moo ëpp loolu waaye misaal boobu ma tey jox tey tey jii da ngay gis ay xariti benn bakkan xariti benn bakkan yu nammante bu ñu dajee kenn du jox sa loxo moroom ku waral loolu mooy jaam corona moo ko tere mbokk dalay xam ne wàjje suñu borom mi wàcce corona suñu borom moo wàcce alquranul karim ay yiw julit lépp loo xamee ne ci corona tere na la ko nga xam ne sa lor moo ci nekk nga koy jëfee xamal ne alquran lam la tere moo gën a yey ci loolu looloo tax ba tey ji at makka googu daan accueillir lu jege 3 millions de personnes tey lan lañu gis at makka ña fa daje muy 10 000 personnes la ñu tànn ngiree kenn mënu koo neenal mbokk lan mooy différence entre 3 millions ak 10 000 personnes loolu kon muy wane ni tey jii réew mu mel ne Sénégal ana ñaata fi daan jóge ji dem Makka tey kenn jógewu fi ndax Sénégal rek déedéet bépp réew ci àdduna waaye mbokk suñu borom yàlla prévoiroon na loolu lépp looloo tax ba ñee nga xam ne ñoom la yàlla tànn ñuy aj Makka bépp yool boo xam ne am nañ ko seen aj ga yow mi nga xam ne yaa toog sa kër jëfe la nga xam ne mooy sunna mooy fexe nga ba ñëw ci julleekaay bi ba nga paree la nga xam ne moom la yàlla wërsëgal ci am xar rendi nga ko ca yàlla rek a tax ngal la way xamal ne yool ba nga xamee ne ñu aj Makka dañ ko am loole yiwit da nga am lu tol noonu mbokk ñu ngi nii tey jii di feet feet boo xam ne nii buñ fi jógee dañu bëgg a rey suñuy xar rendi ji xar ya rendi xar yooyee mbokk xam leen ne defuñu ko ngir lekk aw yàpp kese suñu borom yàlla nee na soxluwuma seen yàpp bi soxluwuma seen deret li ma soxla mooy ragal yàlla gi jóge ci yéen xar yee ñu yeew ci kër ga dafa nekk benn mandarga benn symbole mooy min sha'airillah ci mandarga yàlla yi bu ñuy fàttali benn jébbalu gu mag a mag a mag boo xam ne ñaari jaami yàlla ñoo ko jébbalu woon kii mooy bàyyi ibrahima alayhi salaam kii mooy doom ismail alayhi salaam ca ñooñu ñoo séq la nga xam ne mooy société bi mooy mag ñi ak jeunesse bi ñoo ñëpp war a joxante loxo jàppalante tënku ci li neex yàlla su ko defee yàlla may leen teranga àdduna ak teranga àllaaxira loolu nag lan lañ koy amee niñ koy amee mooy ñun ñëpp ñu xam ne waruñoo jëfe lu dul ndigali yàlla ibrahima alayhi salaam bii bàyyi bi mu ñëwee ci doom bi ismail ni ko eey ismail man kat damaa gis ne maa ngi lay rendi waxu ko yàlla nee na ma rendi la déedéet man daal gis naa ci samay nelaw maa ngi lay rendi ca ab yonent du géntantu lu mu génti ndigalu yàlla la lan la ko doom ji tudd lan la ko doom ji tontu ay sama baay if almaatu omar defal li la yàlla sant loola muy wane ne yow bàyyi war ngaa góorgóorlu ci mboolem say jaami yàlla dëppoog loo xam ne ndigalu yàlla la mboolem say jëflante ak doomu aadama yi dëppoog loo xam ne ndigalu yàlla la loolee njaboot ga la service ba la dëkkandoo ga la lépp lu mën a doon loolee kon mooy ñu jot ndigal ndigal boobee it bañ koy def ñu def ko ci yàlla tax looloo tax kii di ibrahima alayhi salaatu wassalaam ànd naag doom ja ma nga teqalikoog yaayam haajara ña ngay dox di dox ba jëm ca fa nga xam ne mooy jamratul aqaba ca jamra bu mag ba nga xam ne tey jii bi su tey bii mboolem ujaaj yi moom lañ nar a sànni ay xeer loolee lan moo waral sànni xeer boobee nga xam ne tey jii daanaka bokk na ci li gën a jafe ci aj makka yi loolu mooy ma nga jóge woon ci suñu noon bu mag ba mooy seytaan mi taxawoon ci kanamu borom bi ne ko sa jaam yi ñoom ñépp danaa leen yóbbu sawara lu dul sa jaam yi nga xam ne yow yaa leen ca tànn seytaane taxaw na ci ibrahim ndax yow dangaa dof nan ngay jële sa doom nan danga koy rendi loolee ibrahima sànni ko ay xeer seytaane découragé wul daal di koy dajawaat ci jamratul wusta ibrahima sànni ko ay xeer mu demaat ca jamra bu mujj ba ibrahima sànni ko ay xeer ba da ngay gis ne ibrahima bu nekk sànni na ko juróom-ñaari xeer loolu lu mu lay jàngal yow doomu jullit xamal ne am nga benn défi bu rëy te mooy jóg takku ngiree da ngay def ndigalu yàlla ah xamal ne nag loolu yëmbar mënu ko yaafus mënu ko fokk nga doon ku dogu fokk nga doon koo xam ne nii da ngay ah doon koo xam ne nii ku jébbulu ci borom bi jàll waala loolu tax diine lislaam ji suñu borom dañuy wax xuzuha bi quwwa jàpp leen ko ca la nga xam ne mooy seen kattan ey yéen mbokku jullit ñi xam leen ne nag dogu ba nga dogu jëm ci yàlla kenn du ko xoolee ci sa xalaatu bopp ngiree rek man lu neex yàlla lay wut déedéet gëmal ne yàlla daa yónni ab yonentam amul benn jaamu yàlla boo xam ne yàlla dana la ko nangul lu dul ne danga ko royee ci yonenti yàlla muhammad ay yéen jullit ñi xam leen ne ñun benn sëriñ lañu am benn royukaay lañu am suñu borom yàlla ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana liman kaana yarju llaha wal yawma al axir wa zakara allaha kasira képp koo xam ne dangaa bëgg ngërëmal yàlla koo xam ne bëgg nga àllaaxira nga tàbbi àjjana suñu borom nee na benn royukaay ngeen am muy ka nga xam ne mooy yonent yàlla muhammad ñu war a góorgóorlu jéem a jàng sunnaam war a góorgóorlu jéem a mooy ci sunnaam waaye war a jàpp it julit xamal ne yaay borom personnalité ay yow ndawal julit moytul di complexe ci sa diine boo nekkee ci kanamu ay yéeféer kanamu ay naafiq xamal ne falillahi l izza wa li rasulihi wa lil muminin dund leen seen diine loolu moo leen di teral àdduna di leen teral alaxira te xam leen ne seytaane boobu ma doon wax day du ngeen koy mën a gis waaye mbokk seytaane bi gën a rëy tey mooy seytaane internet internet boobay ngeen di jokkool ci seen ordinateur internet bi ngeen di jokkool ci seen portable tey mooy menace bi gën a rëy bi nga xam ne menace na tey njabootu islam tey la nga xamee ne mooy kër gu nekk ubbi nañ fa wifi mboolem ndaw ya fa nekk ñi ngi nekk en contact direct avec des milliards de tonnes yi nga xam ne ñoo ngi koy wàcc ci internet quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf ya ca nekk lenn nekkul lu dul loo xam ne day yàq seeni jukko changer seeni mentalité indi différence bu rëy ci suñuy aada loolee ku nekk ci ñun na ca góorgóorlu kéemtalal kattanam ci kanamu njabootam loolee suñu borom yàlla moo ñu ko sant képp ci yéen ab sàmm la képp ci yéen ëllëg ki si biir yàlla du ko woo laaj ko digganteem ak moom dum doon jaamu yàlla wallaay bu doon loolu mu yomb waaye suñu borom dane qu anfusakum wa ahlikum naara ay yow koo mën a doon xamal ni lu la yàlla mën a dénk ci njaboot yowmal qiyaama da nga régler say dossier waaye da nga régler ana ban rôle nga joué ci njaboot gi nga xam ne yàlla da la ko dénkoon lii lépp mbokk kon it bu ñëwee danañu ko fàttali ci ñu war a góorgóorlu jéem a tàggat suñu bopp jébbalul yàlla jéem a góorgóorlu ci njaboot gi na am nañ am fu ñu dëkk nañ am lu ñu lekk nañ am lu ñu soloo waaye la gën a rëy la gën a màgg bi lay jëriñ ëllëg sa kanamu boroom mooy nga fexe ba njaboot googu xam seen boroom jaamu seen boroom jébbalul seen boroom loolu mooy la gën a rëy ci la yàlla subhaanahu wa taala di la sant loolu mbokk moom mooy al islaam bi nga xam ne nii iidul adha heure bu ñëwee danañu ko fàttali ñu ngi ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yal na yàlla nangul ñu suñu iit yal na yàlla baal ñu suñuy bakkaar yal nañu yàlla wërsëgal ñu jébbalul ko na ko ibrahima alayhi salatu wasalaam jébbaluloon laal na yàlla subhanahu wa taala yërëmal ñu mboolem ña nga xam ne ñoo ànd nu ñun ca la nga xam ne mooy iit bi daaw te yàlla def nañu dugg ci biir suuf ak ñépp ñoo xam ne jiitu na jiitu nañ leen fa yal na yàlla subhanahu wa taala taaral lislaam suñu biir xol yal na yàlla bañ loo ñu lépp loo xam ne kéefar la ak mooy yàlla yal na yàlla subhanahu wa taala rafetal suñu mucc yal na yàlla teggil ñu feebar bii nga xam ne mooy korona ca dara juru ko lu dul suñuy bakkaar yal na yàlla wërsëgal ñu tuub gu sell wërsëgal ñu toroxlu gu sell bam gis ci ñun ne yeewoon nañ mu teggal ñu musiba bii képp koo xam ne faatu na ca ci jullit ña yal na yàlla defal ko àjjana muy wàcc waayam képp koo xam ne ma nga tëdd ca lalu hôpital yi ci feebar yal na yàlla yëkkati ko ci jàmm yal na yàlla musal ci jaam yi nga xam ne dalagu leen woon yal na yàlla subhanahu wa taala bari ak julli ak sëlmal te yonent ba sallallahu alayhi wa sallam defal ko ay sahabaam defal ko ay taabiin yal na yàlla saxal ñu ci seen yoon bañ ànd ak ñoom ñépp tabbi firdawsil aala allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar allahuma rabbana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin ñi ngiy fàttali mbokk yi git ne la chaque ne iid yi passé bokkul ak iidu corona ci niñ daan taxawee fii di nuyonteeg yu demee noonu bokk na it ci loo xam ne nii ñu bëri ci li ñu jàng fii mooy tànk imaam reyul doo mën a rey doonte ne lu mel noo mën ngaa rey jiitu imaam waaye incha allah suñu paree suñu xutba rek dañoo bëgg génn dem lañu ñu yàlla wërsëgal ñu jéem koo rey ci suñu boroom képp koo xam ni day rey na wax bismillah wallahu akbar nga yéene ci sa xol wala nga wax sa làmmiñ ay yàlla lii day jagleel naa ko sama bopp jagleel ko sama njaboot ak fu ñu mën a nekk ci kaw suuf bu ko defee xar moomee incha allah dana leen ëmb allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin